الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم mbokk yi ñu ngi sant sunu borom ñu ngi koy bàkk di ko kañ di julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sunu xutbay tey mi ngi jooy jëm ci wane gu ni wane ni wala wane gu sunu borom di wane ni alquran day mooy kaawteef ji gën a màgg bu mu jox sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginu ginnaaw bu ñu xamee ak lépp ci dundu yonent bi sallallahu alayhi ak ci jikkoom ak ci melokaanam ak ci jëflanteem ci nu xam ni mbokk yi yàlla baaxe nañu lool mboolem xeet yi nga xam ni ñoo ñu jiitu woon te ñun ñu nar na mujj ci ñëpp ñee nañu ca loola doon géejoo moos sunu yonent nekk seen bos doon géejoo moos sunu téere nekk seen a téere waaye sunu borom moom moo xam téere ba te kam koy wàccee ndax wallahu aalam xaytu yajalu risalatahu moo xam ci ñan la koy wàccee ndax moo ñu def xayra ummatin uxrijat linnaas téere bii nga xam ne day mbokk yi bariwaana ci jullit ñi day yëgul ni sax waxi yàlla la subhanahu wa taala waaye màgg gi mu màgg ak foor gi mu foor ay fóore ci pomkan ci ay borom yi xam-xam ci yi jiitu woon nee na dañ doon a ngéejoo suñu borom wàcc ci ñoom alquran wala boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk seen yonent dëgg la yonente bi moom taxaw di wax ay kaawteefam nit ki day wax ba sonn rek mu bàyyi te lam dul xam sax amaan na mu ëpp lam xam waaye boo ñëwee ci alquran moom la borom xam-xam yi tuddee akbaru mujizatin utiya nabi sallallahu alayhi wa sallam kaawteef ji gën a rëy boo xam ne suñu borom jox na ko yonente bi mooy alquran te moo ne tawraat day rot na ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sunu borom da koo bind te loxo boppam loolu bokk la ak alquran alquran sunu borom da ko wàcc la xilma xos jox ko jibril jibril indi ko yonent bi sallam donte waxam la tawraat nag moom foor ga mu foor sabab sa bokk na te la ko waral mooy sunu borom a jël loxol boppam bindal ko Muusa alayhi salaam ca àll wa jël te ànd ak loolu lépp alquran moo ko gën a foor alquran jii day mbokk yi dafa ëmb mboolem loo xam ni lu xeet yu njëkk yi doon jëriñoo ci seen wàllu àddina ak seen wàllu àllaaxira nekk li ñu loo xam ni ci la ñu bu ñu jógee kat laa shakka ni ab jullit bu jàng alquran benn information boo xam ni dana ko soxlaa ci keneen wala ci leneen dootu ko aajowoot ndax li mu soxla ci wàllu àddina ak àllaaxira lépp suñu borom yembal na ko ci téere bi ndax moo ni maa farratna fil kitaabi min shay téere bii de mbokk yi yàlla yi ko woon ñi ko suñu kon day daañu ko gën a fonk kon day daañu ko gën a jox yitte kon de daañu ko gën a jàng daañu ko gën a seetantal dañ ko jàngalu sax seen i njaboot déglu leen aaya jooju ñu mujjee jàng léegi sunu borom mu ni bal huwa ayatun bayinat fi suduri alladina utul ilma xoolal rek doomu aadama su amee gan gu mu fonk su koy yekkal te ndax yéen gën a fonk ca la koy taataan ca la koy def borom bi subhaanahu wa taala bi mu yekk alquran ji di amul ndab lu mu ci doyloo lu gën a foor dënd ku gëm yàlla moo tax ni bal huwa ayatum bayinat aaya yu leer a ngi yoo xam ni fi suduri alladina utul ilma ndab li borom bi xam dañuy sàkku xam ci sa dënd bokk nga borom xam-xam ya alquran ku xam nga kii laay jëg suñu borom ndax benn borom xam-xam ba mu jàngee aaya ji suñu borom di wax ni inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafizun suñu borom nee na noo wàcce téere bi ñoo koy wat mais ndax xel mën naa nangu suñu borom di wattu téere bi te du wattu kii wattu téere bi déedéet xel mën wut loolu li xel gën a nangu kay mooy suñu borom day wattu ki wattu téere bi ngir kooka mën a wattu téere bi suñu borom subhanahu wa taala dafa def ci alquran yi kaawteef yoo xam ni jamono bu nekk yeneen bu ca nekk suñu borom jox na koy kéemaan yoo xam ne yooya lay jonjonteeg aw xeetam xam ngeen yonent yàlla Isa alayhi salaam jamono bi ko suñu borom di yónni mu sës kër ci yonent bi saa sallam booba daanaka ca la xeeti médecine yi commencé di feeñ xaral ak doomu aadama ci wàllu faj bu nit nangam bu ko dalee lii moo koy faj nangam bu ko dalee lee moo koy faj doomu aadama yi xarala ci lool suñu borom yabal yonent bu ñu tuddee Isa jox ko ci ay xeeti kii kaw ci ci kéemaan yoo xam ni dafay laal sirmaxa mu wér mu raay ko am feebaru ngaana mu wér ba xal àgg ci sax nag ku faatu sax nag mu mën a ñëw daal di koy raay ci kàttanu suñu borom mu wér ah mën a defar léegi lu ñuy tuddee am picc léegi te lam koy defaree bu noppee suñu borom daal di koy wal ruux mu naaw lépp ci kàttanu suñu borom loolee kat sikk nekku ci ne ñu yëngu sa wàllu faj bu ñu ko gisee danañ xam ne bii kat moom sut na seen def wa min qablihi yonent yàlla Moussa alayhi salaam xam ngeen dafa tolle woon ak jamono joo xam ne njabar dafa amoon doole lool moo tax firaaw ne ni ko ah ndax da nga ñoo bëgg a génne suñu dëkk bi bi sixrika ya Moussa fala natiyannaka bi sixrin misli njabar gu mel ni sa bopp bi danañ ko indi beneen bi ko suñu borom yatuuka bi kulli saxaarin alim gaa yoo xamante ni moom te ñoom mag tollu mën a njabar xalam toll waaye mbooloo mépp bañ dajee bañ gisee yet yonent yàlla Muusa wa soppli ko jaan wan na seen yeti te lañ xam yii kat dug neen te lañ ñu amanna bi rabbil alamina rabbi Muusa wa Haarun wa min qablihi wa min qablihi gis ngeen Suleymaan jamono jamu tolloon di jamono joo xam ni nguur la ko suñu borom joxoon ak doole goo xam ne muy tàggat jigéen eh, jinne yi ñu koy liggéeyal yaamaluuna lahu ma yashaa min maxaarib wa tamathila wa jifaanin am na jinne yoo xam ñoo koy tabaxali kaso am ñoo xam ne ñoo koy dugal ci biir géej gi di ko génneel période yan sa soxla am jinne yoo xamante ni ñoo koy wattoo ko garde ila axiri yi yooyu yëpp kon ay xeeti mbir la yu sunu borom doon mayee yonent bi nag bu mu yegsee sallallahu alayhi wa sallam dafa tombeeg jamono joo xam ni maanaam nit ñi ci wàllu poète muy xarala ci war a war mën a mën a wax nga xam ne nit ki day teew di wax loo xam ne da nga jàpp ni kii kat da ko xalaatoon diw ba mokkal ko di ko tari fekk déedéet benn waaye ñëw taxaw fii rek nga ne ko taggal ma photo jàkk bi mu taxaw fi mu taxaw ma a way téeméeri bay bi yoo xam ne fi mu taxaw fa la ko feree loolu kéemtaan dëgg la jamono jooju nag ñoom demoon nañ ba seen bàkku ak seen njiit seen bopp yegg na ci dañoo organisé woon benn marché bu ñu tuddee suuqu occasion marché occasion nga xam ne bu marché ba yegsee dañ fay na waykat yi jàngkat yi ñëw ñu ni borom xam-xam ñëw ñu jékki-jékki teg lu mat téeméeri giléem daal di wax benn affaire rek ni kenn na ci wax téeméeri bay wala juróom fukki bay nga xam ni fa nga taxaw fa nga koy xalaat kenn waxul ci lañu war a wax démb nga xam ni nit ñi ni ñu ñoree wala ni ñu yeewoo suñu borom daal di wàcc alquran te jamono jooja nga xam ni wax la joo xam ni ñoom ku ko ci dégg rek dafay daal di joom ñi ndax day xam ni wax ji moo gën a jub seeni wax wax ji moo gën a baax seeni wax moo gën a barkeel seeni wax te wallahi mbokk yi di alquran di alquran ba tey ñu ngi def ay jeexintal ci xol ñu gëm yàlla jamono yi passé naa ñu déglu benn borom xam-xam ci addina euh, bi euh, borom xam-xam bu mag la boo xam dafay daawa muy dafa dem su benn a ci réewu Tugal yi muy mu gis benn maire bu taxaw maire bi nee na day daawa ci diine chrétien moom day woote pour ñu ñëw dugg te diine jooju mu ñu mu laaj ñoo ànd ak ñun waaw kii lu muy def ne ko moom day woote pour nit ñi dugg ci seen diine jooju mu ne ah yéen bu ngeen ko woo yéen jullit ñi ñu ne ko am nañ def mosuñu ko woo mu ne man kay tey ma woo ah te moom nee na laa dégg ci li muy mu yegg ci ndaw laaj ko mu ne ko looy def mu ne ko damay daawa mu ne ko daawa ma man maanaam woo ma yow ci sa diine yow moom borom xam-xam moo ko wax loolu ah ndaw si commencé naan ko Isa la yàlla yónni woon mooy yonent bi Isa mooy nangam di wax a wax ba yeggal mu ne ko te dafa bokk ci li ngay gëm sax mooy Isa doomu yàlla la waa mu ne ko ah man ne loolu jaaxal mooy yàlla moom bu ko see bay wut doom lan moo tax mu taamu benn kese kese lan moo tax wutul doom yu moom ñun ay doom ba mu xësee ba gis ni day wut doom kay balaa tàgg na wut doom yu bari lu laa bëgg laaj ah loolu laaj la boo xam ne dëgg yàlla kuñ ko laaj da nga taxaw tuut ba mu taxawee tuut moo xam ne ndaw si jàngaxe nag ko kon da ngay déglu man ma daawal bi waa ji dégloo nee na mu commencé daal di fere ay arabam maanaam jaa ahmadu fa zahaba ila suuqi summa summa wax ay arabam yoo xam noo ko fere fi mu toog ba mu paree daa ñu ko dégg nga bi ma wax mu ne waaw mu daal di commencé waat jàngal quran kaaf haa yaa ayn saad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا mu jàng ba sax xabi jeex mu ne ko ñaari wax yii ma wax loo ci seetlu mu ne ko li nga njëkk a wax li ngay wax sax bëgguma laa déglu dara sakkuma ci waaye ñaareelu li ngay wax dafa mel dafa am luy dox ci sama biir xol bi ci xaw ma lu subhaana rabbina al aala li mu njëkk a wax du dara waxi boppam kese la te ndaw si nee na keroog la mos a dégg alquran ndaw si foofu la jaaree mu tuub dugg ci lislaam kon loolu da ngay wax ni alquran jeexital yam doon def ba tey mi ngi koy def comme nekkoon ba léegi ma nga borom bi subhaanahu wa taala dafa dajje doomu aadama yi ngir nañu andi benn kaar bu fekkee mën nañ bu mel ni alquran mënuñu ko nañ andi benn alquran ju mel ni alquran mënuñu ko bu wàcc ci benn kaar mënuñu ko bu wàcc ci benn aaya mënuñu ko suñu borom ñu wax dëgg yàlla bu ngeen ko mënul nag fa in lam tafaalu bu ngeen ko deful nag wala tafaalu bu ngeen ko mataman moo tax suñu borom mu ne qul la in ijtamaat al insu wal jinn nit yeeg jinne yi bu ñu daje woon ala an yatu misli hada al quran ngir ne dañoo bëgg a indi alquran ju ni mel laa yatuuna bi mislihi duñ mën a indi alquran ju ni mel walaw kaana baaduhum li baadin zahira jinne yaag nit ñi kenn ku ci nekk day dig sa morom di ko dimbali di ko xelal ngay wax muy wax yéen a déyanteeg lépp ci bokk yam suñu borom duñ mën a indi alquran ju ni mel suñu borom subhanahu wa taala mu ne am yaquluuna taqawwala gaa yi nee nañu ay yonent bi moom moo tëri alquran bal laa yuminuun ah yéen kon loolu moo tax du ngeen ko gëm mu ni fa yatu bi xadisin misli kon yonent bi mis la comme yéen te moo ko keree kere yéen alxuraan ji ni mel sunu borom ne in kuntum saadiqin bu dee wax ngeen dëgg moo tax mu ni wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina bu ngeen amee tuuti sikk sàkk ci liñ wàcc ci yonent bi ndax alxuraan la wax yàlla lam déet wala moo ko keree sunu sunu borom mu ni fattu bi suratin misli andi leen benn saar bu ni mel wad'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum saadiqin woo leen témoin bu leen neex bu dul sunu borom mu ñëw seede suñu borom mu ni fa in lam tafaalu wa lam tafaalu bu ngeen ko defut ba faaw du ngeen ko mën a def borom subhanahu wa taala bokk na ci dàgg yi muy wax ci alquran am yaquluna tara qul fatu bi suratin misli wadu man istataatum min dunillahi in kuntum sadiqin suñu borom mu ni indi leen alquran gi ni mel da ngeen woo ku leen toog su ko defee suñu borom subhanahu wa taala mu ni ñu ñëw ñu nekk ñoo xam ne ay seede la ñu doon waaye su boobaa it du mën a am maanaam duñ mën a am ndam te loola nga xamante moom la ñuy def lii nag mbokk yi dafay wane yor bu yonente bi yoroon sallallahu alayhi wa sallam ndax dëgër bu mu dëgëroon ci alquran ak ñi koy weddi lu ci nekk rek alquran ñëw di ko tontul te it nag mbokk yi xam ngeen ne alquran bokk na jëm taxoon mu gën a sax ñi gëm yàlla mooy ñàkk a wàcc gi mu wàccandoo benn yoon. xam ngeen tawraat ñu naan suñu borom a ko bind ci loxol boppam yemul te loola waaye da koo wàcceendoo jox ko Moussa muy alwaaxiya looloo taxoon gars yi bi ñuy wax yéen saxal naa ko. yaa ko créé daa am ku lay a nga jottali ko léegi pour ñu daaneel la comme bis bu nekk la lay déy dañu bëgg alquran dina wàccandoo tay tay tay lépp law nuzila alayhi alquran jumlatan waxida ne yàlla wàcc alquran ji lépp lépp lépp mu ñëw tay suñu borom ni déedéet suñu borom ni déedéet du wàccandoo noonu ah wa quranan alquran ji faraqnaahu ñoo ko faram fàcce nii mu mel aaya par aaya saar sumun rubo xijib li taqra'uhu ala naasi ala muks ngir ñu koy jàng njàng mu ànd ak dal njàng moo xam sa temps ngay jël mën koo settantal ah suñu borom mu ni wala yatiinuka masalan benn problème duñu ko andil illa ji'naaka bil haqq lu dul alquran laa wàcce muy dëgg wa ahsana tafsira mu ni kadalika nii muy wàccee nag kadalika nii muy wàccee xasbal xawaadis wal ayyaam wassuhuur wassanawat li nusabbita bihi fuaadak wa rattalnaahu tartiila day tax nit ci gëmëm ngëmëm gën a yokk xam ngeen moos bu ñu jékki-jékki xew-xew am ah problème am jullit ñi xamuñu lu ñuy def alquran wàcc daal di koy réglé ah jàpp naa ne loolee kat ku amoon looy yëg ci sa xol da nga gën a gëm Walid ibn al-Mughira di bàyyu Xaalid xam ngeen ni ñëwoon na di cëpp-cëpp ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jaay ak ñàkk yar ah waaye ba alquran wàccee moom bëggatu sëpp tudd aw turam ah ba mu ñàkkee yar sunu borom daal di wàcce nuun wal qalam wa ma yasturun ba mu àgg ni ko wala tuti kulla xallaatin mahin hammaazin mashshaa'in bi namiim mannaa'in lil xayri mu'tin asiim wa utullin ba'da zaalika zaniim sunu borom mu ne yonent bu topp waa joo xam ne foo ko fekk day wax di gëñ ah waa joo xam ne amul sant amul place amul kóllëre amul jom te sax nag la gën a yéeme ca loola mooy moom sax doomi doomi doomi eh, njaaloo la ah wala am na lu mu dégg loo xam ne mës a dégg benn paa bu yaroo ci koñ bu ko a wax mooy sa yaay jurul ci sëy loolu lu garaaw lu rëy rëy rëy di Walid ibn Mughira ñëwee ci yaayam laaj mu xamal ko ni ko ah wax dëgg yàlla day Muhammad xam nga ni moom du wax lu amul te loolu mu wax mooy li am mooy sa baay kat daa nekkoon góor goo xam ne taxut koo nekk góor lool sàmm ba sa baay amoon moom laa àndaloon moo la jur yow Walid kooku dutu xajati ci kaw suuf suñu borom ne incaana daamaali wa bañi ah alal gi mu am moo ko jëy ba tax mu lay diir mag doom yi mu am moo ko jëy ba muy tax mu lay diir mag ida tutla alay ayatuna qaala asaatiru l awalin buñ ko jàngalee alquran mu ne ah léegi maam yéen rek suñu borom ne sanasimuhu al xurtuum bu yëgtee àllaaxira bakkan bi laay bënn nos it nos comme ni ñu koy nosalee jëleen buñ koy wombat jàpp naa ni kookee ak lam yëg di yéebaree te xam ne lii waxu yonente bi ne sallallahu alayhi wa sallam ju bàyyi ko te suñu borom loolu am na lu muy dolli ci seen xol yonent bi xëy na sallallahu alayhi wa sallam ne saxaaba yi kaay leen ngeen sarxe indi leen nangam ñu joxe ci sàngam benn waaye bu ñuy wax Julaas ibn Amr nga xam ne naafiq la daan ni yonent bi dafa defe ne ñun ñooy ay mbaamam yoo xamante ni benn ñaar ñett rek mu indi leen seen alal ci dara leen joxewul benn doomam doomu jiit leen daal di koy jiit ni ko ah wax nga kàddu gu rëy boo xam ne su ma ci noppee noppi naa ci lu rëy te su ma la boolee boole la ci lu rëy waaye du ma noppi mu daal di ñëw boole koog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko boolee yonent bi woo gone ni ko yow sa baay woo baay ji ni ko sa doom nee na yaa wax nanga ba mu ni billahi waxuma xaajuma wax lu luy niroog loolu yonent bi si di xool gone gi fekk gone gaa ngi tàllal ay loxom di ñaan borom ndax rus na waaye rongo njaagi tëwru suñu borom daal di wàcc aaya ci suuratu tawba mu ni yaxlifuuna billahi ma qaalu wa laqad qaalu kalimata suñu borom mu ne bu ñu dikkee di gëñ gëñ loo seen giñ naa fekk yi naan waxuñu wax ji suñu borom mu ne waxuma yaa ko wax waaye ba nga ko waxee sax dinaa génn ci lislaam faf génn ci lislaam faf tuumal nañ lay Aïcha radiallahu anha saxaaba yëpp jaaxle jullit ñi jaaxle ñu toog ay fan yonent bi dem ba daanaka xamatu sax lu muy def suñu borom wàcc fukki laay ak benn wala ñaar te suuratu euh, nuur inna alladina jaau bil iski asbatun minkum ak caay-caay gi fa xewoon ne jamono yee paase ba ngeen di coow ñi ko benn mun a asbatun minkum mbooloo lañ bu bokk ci seen biir même buñ tuddul seen tur waaye nag yéen waa kër Aboubacar laa taxsabuhu charran lakum bu leen jàpp ne musiba la bal huwa xayrun lakum yiw doon la leen di jural ndax bari na musiba rubba musibatin jarat manfaa ah suñu borom ni li kulli mri maktasab min min al ism kenn ku ca nekk rek lu toll ak lam ca def te ñaaw teef ga dana ko fayee ko waaye walladi tawalla kibra ki nga xam ni moo sooke mbir mi muy Abdullah ibn Ubay ibn Salul nga xam ni moo seen ayta di ñëw Safwan ibn Wasil mu ne ah ñaar ñii day moom ñaar ñii jot nañoo ànd ci sëy lii ma gis ñii dalul sama xel affaire ma commencé ci suñu borom mu ne kooka day buy dee ma di ko tàmbal sawar mbugal mu métti métti métti moo koy xaar ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bare ay yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog na ba mu yàgg mu ne saxaaba yi kaay leen ñu ñëw Ali ñëw Miqdaad ñëw keneen ñëw mu ni leen gis ngeen am na kenn ci suñu njiit mbooloo mi ku bindab leetar siiwal suñu fekkee ni ñoo ngi waaj a dem am na jigéen jum ko jox jigéen jàngay dem ak moom bu ngeen dawee dab ko na ngeen ko nangu te bu ngeen dee daw tëbal seen i fas di ngeen ko fekk ci xur wu ñuy wax raw du xaar Ali Miqdaar ak keneen ci saxaaba yi daw ba fekk ndaw sa ca ron keppaaru garab ga muy noppalu ndax daa gaa yi ni ko hey mu ne naam ñu ne ko yonent bi moo ñu nee na nga jox ñu leetar bi bi la jox ndaw ci yëngu wax a wax ay wax juróom Aliou ku teeku wàcc fële ni ko gis nga boo ñu joxul leetar bi fukki laa lay def dinañ fàq ci yéen yi danaa la taw ba nga mën mu xam ne Aliou ku ñàkk caaxaan la nekk ndaw si dafa jël kawar gi xam nga nawet dañuy bëri kawar mu jël leetar bi raw ko ba mu mel ni neex mu dugal ko ci biir kawar gi lépp daale ko nga xam ne même boo tiimee nit ñi gis nga jigéen ni mu baree pexe mu di koy génne ñu jël leetar ba liir ko nekk dañoo ba ñëw xaasib ibn abi baltaata ko bind ñu indi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa sakkan yii suñu borom ko koy wax yu moo ko koy wax ak yeneen boo ko toppoon da ngay lim lu bari loo xam ne ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa koy leeral bal sax nag yu amagut day ñëw keroog ba ñu wàcce te yuhzamul jamu wala na dubur xeex bi amagut te yuhzamul jamu mbooloo mii di ngeen leen gañe wa yuwalluuna dubur dañuy daw fël roqet bal saatu mawidukum àllaaxiraay seen a jib wa saatu adha wa amar fa lay gën a méttee ci ñoom ba ko yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam alquran jooju booba xeex bi amagut yonente bi ànd ak saxaaba yi ni suba fii la diw di faatu suba fee la diw di tëdd ci àndoon ak yonente sallam nee na joxañ ba mu joxañoon kenn ku ne fam la joxañ fa nga tëdd sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkee ci axbaar yi nga xamante ni day ñëw ci mujjub jamono bi yëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ko te lépp mi ngi ñëw ci alquran ayat yeeg ahkam yeeg bal sax nag naa fekk dañ doon daga alquran wàcc yaxdaru almunafiquuna an tunazzala alayhim suura tunabbi'uhum bima fi qulubihim naa fekk dañuy jiit sa alquran wàcc ndax alquran bu wàccee kat maanaam yu bare bare bare yuñ dul nëbbu sunu borom dana ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah sunu borom mi ngi wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naa ko gaa yi kat am nañ ay gaa yoo xam ñu ngi ci biir dëkk bi munafiquun laa taalamuhum yow sax xamoo leen nahnu naalamuhum ñun yàlla xam nañ leen waaye sanu adibuhum marratayn dana leen toroxal ci àddina bañ ñu topp bu ñu faatama tàbbal leen sawara niki noonu yonente bi salaa sallam yàlla mu ne ko wala taarifannahum fi lahni alqawl bu ñuy wax rek da ngay gis muy hésité xam ngeen ni ku nar a wax lu du dëgg ay aw layam du jub ah suñu borom subhanahu wa taala wax ko ay xeet ak ay mandargaay ci yëpp yëppaan yoo xam ne yooyee yu am la beneen bi ci des mooy axbaar yee passé yéen bi du historien te amul benn historien bu nit ci dëkk bu koy jàngal yàlla di ko wax ne ah wa ma kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayyuhum yaqtulu maryam keroog ba yonent ya borom xam-xam ya dajee ak yonent yàlla Zakariya ah yaayi Maryam ëmb Maryam ba indi ko muy sama doom ji daal dama koo nidaral baytal maqdis muy Jérusalem mu di ko garder bi mu juddoo moo ñu ko ci Zakaria fekk Zakaria ah na yaayu yaayu la kon mbokkum deretam la mu ko rek Zakaria ni moom moo ko yore ñi ko des ñi des ñi ko gënoon ñu bëgg lu baax ñu ne dañ ko yore ah comme ñoom sa seeni àtte seeni diine ñu ne léegi nañ ko euh, nu mu man ban foofu nañ ko bantale kenn ku ci nekk indi xalimaam xalima yéen doon jaamoo yàlla di ko bindee seen téere yi muy tawraat kii indi xalimaam kii indi xalimaam kii indi xalimaam ah bu ñu xattalee seen xalima yi xalima ju njëkk a génn rek ñu xam ni kooka moo ko war a yore Zakariya njëkk a génn le moo tax suñu borom ni ko wa ma kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayyuhum yaqulu Maryam ba ñuy tànn seen xalima ya ngir kan moo koy gañe jël ko suñu borom mu ne yonent yow fekkee woo ko woon xamoo woon lan la man maa la ko nettali ah yonent yàlla yi alayhim salaatu wasalaam yaqub ak njaboot ga ñoom yusuf ak ñoom ñi ci des tilka min ambaa'il ghaybi nuuhiihaa ilayk suñu borom mu ne lii muy xabaar yi ñëppaati maa la koy informé ah nit ko woon koo xam ne fekkee nga ko xamoo ci woon dara lu dul yàlla moo la ko moo la ko xabaare ndax moom dafa am ay livre yu mu gis daal di koy jàng suñu borom mu ne déedéet nee na wa maa kunta tatlu min qablihi min kitaabin wala taxuttuhu bi yaminik idan lastaaba al mubtiluun yow sa fas da ngaa mënta bind muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bind na ba faatu dañ koy bindal waaye daawul bind mënul bind maa kunta tadri man kitaab xamoo luy bind ah wala iman gëm yàlla xamoo ca dara lu dul yàlla ginnaaw bu wax yi dikkee mu xamal la ko ah borom bi subhanahu wa taala def yonent bi sallam mu ni ko wa maa kunta taxussuhu bi yaminik daawoo bind dara ci sa loxo idan lartaabal mubtiluun kon gaa yi danañ am lu ñu wax ndax danañ ni kat kii kon daa jàngoon di làqatu di jàng ba ñëw daal di yey nit ñi sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa anzalna ilayka alkitaba alhaq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhayminan alayhi alquran dafa ñëw di dëggal téere yi ko jiitu woon آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ñun dafa bokk ci suñu diine rek li am ci suñu diine mooy duñu critiquer yonente fenn loolu moom ci diine i rek la am beneen diine boo dem ña ngay kii diggante ay yonent am na ñoo xam ne ña ngay wax Souleymane lu mel ni xay am ñoo xam ne ña ngay wax Aïssa lu mel ni xay xam ngeen juif yi ñoom ñooy ñi gën a ah, ay ñaawte yi génne ci Aïssa parce que du seen yonent yee tamit di génne ay ñaawte yi jëm ci Moussa ndax du seen a yonent waaye yow yëgal ni sañoo ko de gis nga benn waay bu ñëwoon fii mu wax yonent bi lu ñaaw sallallahu alayhi wa boo waxoon lu ñaaw seen ak yonent bu lislaam day yar yow lay njëkk a yow jullit bi ah moo tax waaja ba mu rombee ca marché ba euh, benn yahud naan giñ naa ci Moussa alayhi salaam jullit bi xàccum salaata rek ubbi kaaba gi mu daanu ci suuf ah yahud bi ñëw daal di koy boole ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko lu ngeen jotee mu ne ko may wax muy giñ naan ci Moussa lay giñ ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko bàyyi leen Moussa bu kenn waxati dara Moussa ndax àllaaxira kat bu ñëpp xamee seen xam googu nga xam ne yow wàllu bopp bi yonent bi na man maay njëkk a mën ko jub te bu ma nee sëllu jub damay fekk Moussa ma nga taxaw ca ron aras damaa xamul ndax moom daa xamut moom damaa xamul ndax daf a mën ko damaa xamul ndax suñu waroon da koo fayee xam gëm xam yow mën na damay gis sama borom loolu xam ngeen ko lu rëy la lu màgg la si Moussa alayhi salaam léeg-léeg bu yëf yi mu daan tar ba metti ah kenn gën sama ne sama waaja waaj ñu ne kan mu ne mu ne ko mu ne lor nañ ko lu ëpp li lii ñu ma def tey ci yàlla te teewut muñ na ko moom Moussa alayhi salaam moo tax mu doon wax li ma tuduuna nii wa qad taalamuuna anni rasulillahi ilaykum suñu borom def suuratul ahzab laa takunu kalladina aadaw Moussa fa barra'ahu allahu mimma qaalu wa kaana inda allahi wajiha bu leen bokk ci gaa yi nga xam ne ñoom dañ doon lor yonent yàlla Moussa ba yàlla setal ko ca lañ ko doon jiiñ te ndax Moussa kat ku am dayoo la ku am martaba ju kawe rek suñu borom kon mbokk yi boo ko toppee da ngay gis ne alquran xabaar yi ña paase fi mu toll ak lay ñëw ak àtte yi li ñuy dundee ak mbir yi nga xamante ni dañ ko doon dàq yonent bi ngir daaneel ko te loolu borom xam-xam bu ne war na ko bàyyi xel ndax am na ñooñu xam na lu ñuy bëgg mooy kees pour la daanelee boo defoon discours balaa du ñu ñëw xool fan nga fan nga fatxa foo xam dañ ko war na kasra ah dañ koo sukkoon te dañ koo war a yooyu wa illa xadis bu daif boo tudd wa illa yu mel noonu lañ lay dàkkee yonente bi salaa sallam ñëw nañ gars yi dañoo dem ci yahud yi ni leen dañoo bëgg ngeen waxal bi wala labbe yi ni leen dañoo bëgg ngeen waxal ni ñetti question yoo xam ne yu sot lay doon buñ ko laajee yonente bi salaa sallam xamu ko rek ñu publier ko ci àddina bi ni leen yonente bi xamul dara borom xam-xam bañ dajeel ñu leen da ngeen koy laaj ñi ko ñen ñooy jeunes yi nga xamante ni ñoo njëkk a faj dogu génn seenu askan dem ci àll bi ngir jaamu suñu borom ñaareel bi mooy ki nga xam def na tour du monde wër àddina bi ñetteel bi mooy li ñu tuddee ruux fan la nekk ci doomu aadama dañu fi yegsee nag yonent bi def na foofu njuumte boo xam ne ku di julit boo ko jàngee da nga siit ku fay wax ndax yonent bi alayhi salaam bi ñu ko laajee au lieu que mu ngi dinaa leen tontu fekk bu soobee yàlla mu ngi dinaa leen tontu waxut bu soobee yàlla te suba te gars yi war a ñëw alquran wàccu yonent bi daanaka mel ni ku yenu ndax dinaa la day wax nangam gor su ko wax bu xëyee mbir ma sottiwul rek day jox du am lu ko neex suñu borom bàyyi ko ba mu xam ne mbir mi jógewut ci moom mu ko wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha na mujj tey nga naan dinaa def nangam wala ma nangam te waxoo bu soobee yàlla gis nga de yonent bi la yàlla yaree loolu waaw fa kay fekk nit ñi nga xam ne li ñuy xëy di programme bés ngoon jot bu junni benn bu soobee yàlla sax bu ca ànd suñu borom ni ko innakum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnaakum hudan mooy ashaabul kahfi dëkk sàngam lañ dëkkoon lii taxoon ñu génn mbir ma daal di leer ñu ne xam kay loolu dëgg la kan mooy ci wër àddina bi dul xarnay buur boo xam ne buur bu gëm yàlla suñu borom jox ko doole nga xam ne ku mos a dana daje ci kaw suuf suñu borom mu ni ko bu la neexee imma an tu'adib bu la neexee nga mbugal leen bu la neexee nga jàpp leen i jaam bu la neexee waar leen bàyyi dem ndax borom bi moo ko joxoon nguur googu yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne suñu borom daal di ko koy nettali dañuy tey si ruux nag mu ne yasalunaka ani ruux qul ruux min amri rabbi ah ruux de suñu mbirim la borom la bokk nag wa ma utitu min al ilmi illa qalila xam-xam moom la ñuy si jox lu tuuti la te lu tuuti loola suñu borom da koo xaaj ci ay xaaj xaaj kenn ku ci nekk am na ca xaaj te xaaj xaaj yi ëppalante nañ ca waaye nag mbiram ruux moom bokk ci xaaj xaaj yooyu kon moom mbir yi nga xam ne dafay dëggal aji gëm ci ngëmam feeñ na ci alquran moo tax sunu borom ni kadalika li nusabbita bihi fuadak wa rasalnaahu tartila ginnaaw loolu mbokk sunu xamee ni kon alquran mi ngi nii dayo ji la am martaba ji la am féete kaw téere yëpp lan mooy sunu taxawaay nun jullit ñi sunu digganteeg alquran ragal naa bu yonente bi dellu ci waatoon sallallahu alayhi wa sallam am na aaya jot bu koy jàng ci alquran ci suratul furqan wallahi bu koy jàng xol bu naqari la koy boolee ci jooy sallallahu alayhi wa sallam wa qaala rasulu ya rab inna qawmi ittaxadu hada alqurana mahjura yonente mu ne yow sama borom sama xeet bi de fi nekk nii bàyyi nañ alquran léegi leneen lañ nekk lu dul alquran xoolal mbokk yi bu njëkkoon dafa mel ni jàng alquran moo doon ndam ci àddina bi fii àddina bi yëpp rawatina ñun suñu dëkk ñun nga xam ne ak koo mën a doon bala ngaa def lenn di nga jaar ci daara di jàng alquran dañu gàcce dafa ruslu ak julit bu dem ba ñu yëngu-yëngaaral alquran sax mënoo koo lire ak julit bu ñu yëngu-yëngaaral ci alquran mënoo ci dara wa illaa la nga demoon lu tuut la xoolal sa mbiri àddina lim la jaral yow kenn ku ci nekk na xool mbiri àddina lim ko jaral 24 heures sur 24 yaa ngi jóg a dal te alquran liñ la ci sant lu tuut la waxuñu newuñ la mokkal ko par force newuñ la wàcc ko par force newuñ la xaaj ko par force jàngal rek la jàppale xatta nit ki bu defoon ak dugdam xisibu am ma rek la yem wala tamit ma rek la yem waaye foofa la mën a yem te ma ngi koy jàng ma ngi koy setantal jaaram wàcc na bu fekkee nit ki da koo rëcc lan mooy ndeyu dabaatalu ko ci njabootam moo tax génn góor gu baax kii daana wax ni nit ki su fekkente ne nee na su ma teewoon badar danaa dem muy taw te génnoo dem te badar dem jàkka ja mu ne boo fekkoon badar doo dem su ma su ma delluwaatoon ndaw wala sama wayjur su defoon nangam mu dugal ma daara yóbbu ma kokki wala nangam ma jàng te bi nga amee doom yóbbu mu jàngi mu ne waxoo lu am boo ko delluwaatoon it doo ko def kon mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal wax ma yow miy jàng alquran waaye nee na àllaaxira sunu borom dana jël bàyyi teg ci piliyaar jël yaay teg ci piliyaar solal leen ku nekk mbaxanam or moo xam ni leeraay ga day fay leeru jant bi moo gën a leer leeru jant bi ñoom ci seen jëmmi bopp dañuy reconnaître ni lii du seen jaamu yàlla ñu laaj suñu borom waaw lii fu mu jóge ñu ne ko ci sababu sa doom ji nga jëloon jàngaloo ko alquran billahi aleykum bu dee sa doom ji nga jàngaloo alquran moo la mën a jural loolu waaw fa kay fa sa doon jàngi bo fa kay bëgg yow mi doon jàngi yow da ngaa jël sa doom bi mu mu jàng kese ñu mën la cee fayee ci yaa ko ci doy noonu waaw fa kay fa ka moom ma ko doon jàngi fa kay fa ka yow mi bokk ci ñi ko doon jàng ak ak yoo mën a toll nag bul découragé ne mën ngaa jàngal alquran ci jamono yi passé nekk naa benn Euh, xista boo xam ni defe naa ba ñu koy nettali am nañu ko i ci jàkka ji góor goo xam ni dem na ba am daanaka lu ëpp juróom-benn fukki at jege téeméer doomam dem jàngi alquran dellu si mokkal mu ne pourquoi moom mu njëkk koo juddu ëpp koy fexe gën koo muus ko def dama ko loo xam mu takk ay bagage day jàngi moom bi mu demee fer iji alifun baawun taawun bala muy fer iji rek def na ci ñaari sonn ci àll bi bàyyi ak njabootam comme man lañ doon def dem boole laxas dem jàng soo mënee toog toog soo mën toog may naa la sa baat nga dem sa yoon damay sàkku ci xam-xam góor gi ca la nekk ca la nekk ca la nekk ba yàlla ko mu ji ni ko nañ xool maa euh, di yéeg bàyyi ji tàmbalee ci kaw baqara di tari ñoom ñaar li ñuy daje fañ yem ca bis boobee te la góor gi faatu gis naa ku ne ma Kossy fa waa joo xam ne fukki at ak juróom def na ko fa ni alquran bi mokkul ak mbiram kon kenn ku ci nekk mbir mi njëkk la yent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam allah ka daan la kaay nga ñëw la fu ma jëm dina la yéegal rek ah ba fan laa jëm ñu ne yéegal rek foo yem yaa fa yamal sa bopp iqra warfa jàngal nga yéeg ci étage bi foo fegee rek ñun foofu mooy sa kër subhaana rabbina al aala waaw ki nga xam ne mokkal ci alquran lu bëri fa kayfa ki mokkal lépp nag yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam alquran dafay ñëw àllaaxira ñu xisaab nit ci ba ndox ci jegat jegat di jëme safara alquran dox digganteem ak sawar ne suñu borom déedéet bii moom kii moom fekkal noo def ak moom suñu borom ni ko kii kat ku saay saay la ko nangam la ko dama koy mugal mu ne ko ah li muy saay saay saay saay daana ma jàng li muy saay saay saay saay daf ma naan jàng daf ma naan seetantal seetal noo def ak moom coow li bari lool yéen yàlla nee na fa ñuy mujjee mooy ñu bokk moo bokk moom alquran def ñu daal di ko saabal àjjan allahu akbar kon mbokk yi alquran nañ ci delluwaat nañ ko jàngaat toroxtaange gii ñuy dund yëpp li ko waral mooy dañoo du mooy alquran wa man yaasu an dicri rrahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan danka suñu waram mu ne bis boo jàppee ne yow nga jàngi leneen kese moo lay gën a jàngal wala alquran wala sa njaboot yi jàngi alquran moo gën a wóor sunu borom mu ne danaa dafa dund gu karat dund gu xat sunu borom mu ne saa boo dundoo yow alquran yàlla nee na di nga am maayisatan banka dund gu xat wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama dama lay futti ba nga ni dung comme ni nga juddoo woon ci sa yaay suñu borom mu ne ñu jiital la jëme sawara nga nekk ku silmaxa di këmax këmaxi doo xam foo jëm day wax yàlla man kat bi may dund gëm gu ma woowoon silmaxa wu ma woon suñu borom mu ne li tax nga silmaxa mooy aaya yi daa ñëwoon ci alxuraan jàngoo ko seetluwoo ko jàngaluwoo ko looloo tax bi nga ñëwee tey ma gëmmuloo say bët bu ko defee nga daal sàddi sawara wala ayaasu billah mu ngi ñaan bi asmaa'il husna wa sifaatil ula أن يرد المسلمين إلى دينهم مردا جميلا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همنا وهمنا وغمنا اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصتك نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين